bokk ci borom xam-xam yi nga xam ne moo nekk fii ci Touba xam naa kenn dootu ko présenté ci réew mi ak ci bitim réew sëriñ bi ginnaaw buñ la siyaare ñu ngi lay ndokkeel di la dalal ci site bi ñuy wax Tanim TV xanaa ñu bàyyi la nga nuyoo sëñ Sidi Mokhtar. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi nga xam ne yéen a ngi jàkkaarloo ak ñun di teewlu seen site bi nga xam ne moo di Tanime TV ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci xew-xew bi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal di jiital sant yàlla ci teg julli ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam di ñaanal cheikh muhammadul muntaka mi nga xam ne moo ne ci sunu kanam sunu borom dolli ko sàmm dolli ko wér te lépp lu mu sumb su sunu borom defal ko ci tawfiq ak ndam te noo ko ànd koog moom di la delloo nuyoo yow sëriñ Saalihu Ñang euh, di nuyu itam sa yi nga àndal nga xam ne wàllu xarada gi ñoo ko méngoo ba loo xam ne si war naa jàll ci bokk yi nga xam ne ñooy seetaan ñoom ñoo koy jàllale kon ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant. Mm-hmm. jërëjëf mbokk yi ñu seetaan kon kooku moo doon sunu gan ñuy waxtaan tey ci jëm ci màggal bis bu tedd bi nga xam ne tey nag dañuy jël baat bi nga xam ne moo di màggal sëñ bi xam naa ne thème bi mooy nan lan war a màggale ak euh, ni ko borom xam-xam yi wax wala ne màggal si dafa am màggal am waaye man bala noo tàmbali foofu sëñ ñu laat baatu màggal cosaan li ak kañ nga euh, cosaan li mën nga nu ko indil ak sëriñ bi moom moo ko tudd noonu euh, mën nga noo fàttali ci baat bi jëmmi baat bi. waa jërëjëf sëriñ Saalihu mbokk yi nga xam ne yéen yéenay seetaan ñu ngi yeesalaat nuyoo ak ziyaara ak ndokkeel sëriñ Saalihu loolu nga laaj tontu li ñu bari xam nañu ko ndax ñu bari dégg nañu sëriñ Saalihu Mbàkke yàlla na sunu borom dolli ko ay xéewal mu di ko nettali mm-hmm. mu wax ne bis bii sëriñ bi moo ko santaane ba mu ñëwee njaareem ba am fa ay ay at at yi sax dañ ci wuute waaye ala kulli xaalin moo ko santaane bi mu ko santaanee nag e, na ma ko santaane mooy bernde def ay bernde di ko santale sunu borom waxoon ne xeebuma ci gana ganaar xeebuma ci ganaar waaye itam nawuma ci gëléem kon li nekk ci diggante boobu lépp mënees na ko jëfandikoo ngir santle ko sunu borom muy ay bernde bernde yi nag tax na lenn ci mag ñi daa ko wooyee tabaskiwaat ndax tabaski bu ñëwee eh, ku ne xam na ne dañuy defar ay gàtt di defar ay xéewal te tabaski bu jàllee tamxare tege ci màggal moo ci tege euh, niroo gi mu niroo ak tabaski nag ci wàllu xéewal yi nga xam ne moom la ñuy jox mbooloo mi tax na ba lenn ci mag ñi di ko wooyee tabaski waat sëriñ Saalihu nag nettali na ñëpp dégg ne sëriñ bi daal di wax ne tabaski kat day sunna soo xam ne sirna Ibrahima alayhi salaam ci moom la bàyyi ko bi lislaam ñëwee itam yàlla yeesal ndigal la ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam kon su ngeen ko dee wooyee tëbaskiwaat kon day mel ni dañoo fekk sunna ñu bëgg caa dolli lu ci bokkut kon bu ñu koy wooyee tëbaskiwaat waaye nañ koy wooyee ak màggal ak màggal sëñ Saaliwu sax ba mu ko waxee dafa wax ne kon baatu màggal ci làmmiñu sëriñ bi lañ ko njëkk a mm-hmm. kon baatu màggal foofu la soqi ko. Mhm. jërëjëf kon nag nu ñuy màggale sëñ Sidi Mokhtar Ka loolu moo doon thème bi loolu loonu ci mën a fàttali ak yan sart ak màggal ku ko bëgg a def te bëgg a am yool bi nan nga koy defee. waaw euh, sëriñ Saalihu ñu ngi lay gërëmaat di la sant di wax ne màggal ak jëf ju baax ju mën a doon joo xam ne yàlla moo tax ñu di ko def dëppale ko ak ndigal mooy tax mu am njariñ Euh, yére yi nga xam ne moom la ñu sol ku ne xam na ne am na biti am na biir jëf ju mën a doon euh, am na bitti am na biir biir gi mooy li nga xam ne mooy sa diggante ak sunu boroom nga xam ne sunu borom dong moo ko xam loola mooy lan mooy lépp looy jëf na yàlla rek a tax kon xilaasul amali lillaahi mooy looy def mu sel nga sell ko def ko it ngir yàlla rek bañ caa boole keneen loola mooy li féete biir bitti bi mooy euh, lépp looy def nanga fexe ba mu dëppoo ak sunna sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam nga xam ne bu dee wax ku ko dégg dana xam ne wax ji wóotewul ak sunna mm-hmm. bu dee jëf ku ko gis dana xam ne jëf ji wóotewul ak sunna mm-hmm. moo tax euh, yàlla waxoon ne fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saaliha fal yaamal amalan saaliha mooy na def dëf na def jëf ju dëppoo ak sun sunna mu tekk nag wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada mooy la muy def nag na yàlla rek a tax bu mu ci boole keneen kon ndigal lu mën a doon ñaari charte yi sëriñ saalihu mooy na dëppoo ak sunna waaye itam na yàlla rek tax ndax jëf ju dëppoowul ak sunna ngeen ñi bi def nee na man man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ku jëf-jëf joo xam ne dafa wuuteeg sunu mbir dañ ko koy delloo moo tax kon muy màggal muy leneen lu mën a doon lu ci waay di def na yàlla rek a tax lu ci waay di na fexe ba lu juyoo ak sunna du ko jëf du ko wax moo tax sëriñ bi ba mu ko diglee bernde la waxoon ndax xam ngeen ne gàtt bañ ci njëkk a defar xiste bi ñëpp ko dégg muy sëñ Moulay Bousso moo ko nettali bañ ko defaree dana ko demal ci kër ga nga jox ko soxna diw ak soxna diw ak soxna diw am ñu ko tudd nañ ko toppatoo bañ ko toppatoo ba noppi moom sëriñ bi dañ ko indi mu séddale ko def ko ay bernde ca la tàmbale na at mu jotati bu ñëwee bernde yi nag yaatu ndax ba mu ko xasee santaane rek bernde day yaatu ñu koy indi ci biir kër gi di ko indi ci penc mi di ko indi ci mbedd yi di séddale bernde yi ñëpp di xewlu mu koy defe noona di ko defe noona di ko defe noona ba ni mu ñibbisee Touba bi mu ñibbisee Touba itam xam ngeen ne Cheikh Mouhamadul Moustapha yal na ko yàlla doole ay xéewal moom itam wutu ko di ko doxale na ko sëriñ bi daan doxale ni ko sëriñ bi daan doxale mooy kenn ku nekk fa nga nekk fa nga dëkk fa nga daan defee màggal gi. waaw lu mu sori sori rek kenn ku nekk fa nga nekk su bis bi accès xam nga ne lii mooy bisub sëriñ bi te mooy bis bi nga xam ne ba mu koy santaane dafa waxoon ne sunu borom lim ma defal lépp ci liggéey bii laa ko laa ko amee te liggéey bi ci bis bii laa ko tàmbalee. Mhm. bis bii laa fi bàyyi ko dem dem tukki ba tax ma am li ma am. yéen ñi ànd ak man it lii ngeen fee sàkku si bul woon ak liggéey bi tax ma am li ma am. kon li ngeen di sàkku si bu ngeen ko sàkku see du ngeen ko am. Mm-hmm. kon nag yéen tam war ngeen war ngeen maa sant la sunu borom ci bis bi. kon muy cant ku yaatu koo xam ne ba mu ko ba ko santaanee. Mm-hmm. ñëpp di ko def kenn ku nekk fa nga nekk. nga di ko fa defee kenn ku ne sa kem kàttan. Mm-hmm. nga di ko def. noonu la ko taalib yi doon doxale noonu la ko sopp yi doon doxale te sëriñ bi moo wax ne. shukru ilaahi xaana fi turaabi baada jamili sabri firtira bi sant sama borom jot na ma defee ko fii ma dëkk mhm. ginnaaw ba nga xam ne dañ ma yóbbu woon fu sori di ma tumurankeel waaye nag ma muñ ko muñ muñ muñ gu rafet waxaat na ne lahoo shukuriya la daa daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa qilaam mhm. ah, danaa ko sant ci sama jëmm danaa ko sant ci mbind mi may mbind di ko defee fii ci daaru salaam di ko defee tam ci tuubaa kon loolu mel na ni junjulu ci def gi ñu koy defee Touba. Mm-hmm. bi nga xamee na nag Cheikh Mouhamadul Moustapha yàlla na ko yàlla dolli ay xéewal euh, bàyyi ko na fi rakkam ja di soppeem ba wóotu ko muy Cheikh Mouhamadul Fadil euh, ba mu amee ren ak déwén rek laal li wax ne kenn ku nekk toog toog ci sab ruq di santale sëriñ bi sunu borom day baax na lool waaye nag mbooloo di dajee di ko def moo gën a baax mbooloo itam fuñ mën a daje di di ko fa defe baax na waaye nag di daje Tuubaa di ko fa defee nag moo moo gën a tee baax te bu ñu seetloo yàlla li muy santaane lépp dafa bëgg mbooloo di ko ànd yaa ayyuhal ladina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wafaalul xayra laallakum tuflixuuna mm-hmm. julli julli kenn ci biir këram yàlla dana ko fay lu baax la waaye nag mbooloo mu daje ca jàkka ja wala jumaa ji di julli mu moo gën a tee baax mm-hmm. loolu la sëñ Fallou tegtaloo daal di wax ne kon mbooloo di ko defandoo moo gën a tee baax waaye nag buñ ko dee defee si Tuubaa nag day gën a tee baax mm-hmm. ndax barab bu ñu yaakaar barab bu ñu barkeel di fa def jëf ju baax day tax ñu ful say jëf booba nag la ko woote bam ko wootee nag Euh, dafa bind wax ni nga xam ne képp kuy màggal bis bi noonu nga war a màggale mu wax ne euh, xeet yépp am nañ ay bis foo dem ci àdduna xeet yi am nañ ay bis mm-hmm. mbooloo yi am nañ ay bis mu joxe te misaal sidna ibrahima alayhi salaatu wasalaam nee na tabaski ne xam na ne ci moom la soqi ko mm-hmm. mu ñëw ci gàmm neena na gàmm ñi koy def defee fu ne ci àdduna waaye la ko sabab xam nañu ko mooy gan ak àdduna Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam mu ne nag ñun ñii itam nag am nañu sunu bis ndax sëriñ bi moo santaane bis bii du doonut lu mu junj ñu naan lii la ci jublu ba wala laa la laa la ci jublu. Mm. wala mu digal ko ñii bàyyi bàyyi ñii. Mm-hmm. waaye da ko wax mu leer naañ ñi mu jëf ko tam mu leer naññi ci kanam ñëpp. mu ne nag kon bis bu ñëwatee nag xam ne mooy suñu bis. bu ñëwee nag nañu ko màggal daal ne ana nuñ koy màggale mooy la ci jiitu mooy nañuy jàng alquranul karim xam ngeen ni jàng alquran tuyaabam kenn xamul nu mu toll. boroom xam yi sax dañuy wax ne nit lu mu tabja tabja tabja sib nañ sax nga xëy suba ba jand sax te xooloo kaamil loo tabja tabja sax ubbi ko xool te xadis ba wax na ne man qara alqur'ana fala fa lahu bi kulli xarfin xasana ku jàng alqur'an laaya bu nekk am nga ca yool daal ne wala aqulu alif laam mim xarfun waxuma nga wax alif laam mim de muy toyaabu waaye boo ne alifun xarfun wa laamun xarfun wa mhm. miimun xarfun kon alif da ngay am toyaabo laam da ngay am toyaabo miim da ngay am toyaabo kon ku fa ku tàmbale euh, fatiha ak baqara ba naasi kon sa toyaabo kenn xamul nu nu mu toll am na xadis yu baree bare yoo xam ne day soññee ci jàng alquran wax na ne mbooloo fu ñu daje mm-hmm. uh, daje ci néegub yàlla di fa jàng alquran suñu ko defee yàlla day wàcc ñoom day day wàcc ci seen kaw dal yàlla day wàcc ci ñoom yërma yërmaande malaaka yi sax dañ leen di wër dañ leen kon mbooloo fu ñu daje ci néegub yàlla di jàng alquran malaaka yi dañ fay teew mm-hmm. jàng alquran ci bis bi liñ ciy wàcce kenn xamul lu mu toll xam ngeen ne fa fee ñuy julli iid ca penku jumaa ja euh, daara yi dañ fay daje dafa jàng alquran euh, lim ba ba ma ca mujj dégg daaw xuma daaw jékk lu ëpp ñaar fukki junni ñaar fukki junni kaamil wàcc nañ ko fa te noonu ñuy def daara yëpp noonu lañuy def noonu ñuy def jàkka yeeg jumaa yi dañ koy def noonu ñuy def penc yi dañu koy def noonu ñuy def borom kër yi sax dañ koy def ci seen biir kër bi su màggal ñaari bari na kër yoo xam ne dañuy séddalee ab kaamil di ko jàng kon baat boobu sëriñ loo wax ne nañ koy màggal ci jàng alquran loola ñu ngi koy jëfee bu wér wéra wér wér te tuyaaba ja gannaaw buñ ko yéenee ki nga xam ne moo digle cant gi dañ ci ñaan ñaana ñaana laalew ñi nga xam ne dañoo wujj sunu borom dawlo way dawlu yi waaye dañ ciy ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf waaye dañ ciy ñaanal sax réew mi nga xam ne feloonu feloonu nekk te mënul ko génn dem feneen waaye dañ ciy ñaana laale sax adduna sépp kon jooju tuyaaba kenn xamul nu mu toll mu tekke ne euh, bu ngeen di ak alxuraan tam na ngeen di tudd sunu borom hmm. te jàng alxuraan ki ko man di ko def baax na waaye ki nga xam ne munu ko waaye ña koy def mu bégal leen mhm. euh, neexal leen su ko defee dana am yoolub ko jàng alxuraanu karim mhm. kon tudd yàlla gii mu ci teg nag moom moom ñi ko ñi ko mënut bariwuñ ñëpp ko man façon tudd yàlla bu mën a doon nag ngay tudd yàlla ci sa kurus di tudd yàlla ci saw làmmiñ te tudd yàlla moom man ngaa toog di ko def. Mm-hmm. mën ngaa soonu di ko def man ngaa jaaxaan di ko def. Mm-hmm. Euh, kon di tudd yàlla ndax tudd yàlla mooy fàttaliku yàlla. Mm-hmm. tudd yàlla mooy bàyyi xel sunu borom. te sunu borom képp ku ko bàyyi xel moom it dalay bàyyi xel. moo ne fas faskuruni askurkum dee leen ma bàyyi xel kon ma bàyyi leen xel. waaw la si ne yaskuruuna nasullaaha la tax mu ne nasullaaha fanasiyahum mhm. waaw dañoo dañoo bàyyiwul xel yàlla mhm. mel ni ñu ko fàtte yàlla tam ba xel mhm. mel ni da leen fàtte waaw su ko defee kon jàng alquran ci ci la bokk tudd yàlla ci la bokk mu teg ci nag joxe ñam te joxe ñam bernde nag kon moo daal di ñëw te bernde nag moom cosaanul màggal mooy bernde mooy bernde te bernde bi itam. Mhm. nee na bu ñu ko defee. Mhm. ñuy seet ña ko aajowoo. Mhm. ñu leen koy jox. ñi nga xam ne ay masaakin lañ ak ay fuqara. ñu leen koy jox ñi nga xam ne doxan ay doxandeem lañ. ñu leen leen koy jox. nga xam ne daal ci gàttal seen loxo dafa jotul seen ginnaaw. ñu leen koy jox. te joxe ñam moom. Euh, moom itam alxuraan da ko tudd fu baree baree baree bare. Euh, kon bokk ci ni ñuy màggale ngay joxe ñam fii ci euh, Touba su màggal da nga gis ñoo xam ne dañuy ray ay giléem di rey ay nag euh, euh, di ko séddale waa seet ñi nga xam ne dañoo dëkk ci dëkk bi te seen loxo taxul mu jot seen ginnaaw ñu ñu koy séddale am na ñoo xam ne tam dañuy togg di ko yenu mm-hmm. boo demee ba ca mbedd ma rek nga taaj nga taaj mbooloo mi buñ ko gisee gis muy xéewal gu mucc ayib mhm. ñoom ñëpp dañ koy mm, aajowoo daal aajowoo aajowoo mhm. kon nag di joxe ñam bokk na ci ñi nga xam ne noonu lañuy màggale waaye joxe ñam nag buñ koy def nañ fexe ba yàq bu mu ci bokk mhm. yàq mooy ngay <coughs> waajal loo xam ne xam nga ne lii fa muy mujj mooy dañ koy tuur koy tuur te loolu bari na ci màggal yàlla wax ne la wa kulu washrabu wala tusrifu mm-hmm. lekk baax na ba suur naan baax na ba màndi waaye nag yàq moom mm-hmm. bokkul ci sant sunu borom mm-hmm. kon bokk na ci nit ñuy màggale nag kon nga joxe ñam waaye bul yàq uh, li ngay togg daal na nga fexe ba di ko jox ña ko aajowoo te mbooloo mi teew ci màggal gi lu togg soo ko yemalee ci sa biir kër mën naa des bañ koy tuur waaye nag soo ko yaatalee na nga ko war a yaatalee. Mhm. moom dara du des ndax mbooloo mi kenn xamul nu ñu toll. Mhm. mu tekke nag ne euh, nañuy jokk ak bokk. Mhm. loolu tam mi ngi ci mbindum Cheikh Mouhamadul Fadil. jokk bokk googu nag euh, moom dafa feeñ ci màggal ndax gan ñii ñëw ñu ci baree bare ci seen këri bokk. la ñuy dal. waaye li ci gën a yéeme mooy <coughs> am na ci ci bokk yi ñaw xam ne. rendez bi ñu am at mu jot. mooy màggal ndax seeni dëkk dafa dafa sore sore goo xam ne amuñu jotug néeme konte amuñ googu jot waaye màggal nag la ñuy gisante mm-hmm. bari na bokk yoo xam ne duñ gisante lu dul benn yoon ci at mi te màgg lañuy la ñuy gisante mm-hmm. kër diine yi fi teew mm-hmm. di ay bokk ñoom itam bari na ci ñoo xam ne màggal rek la ñuy mën a gisante ndax bu dee gàmmu kenn ku ne da ngay gàmm gàmmu fa nga nekk yeneen xew-xew yi kenn ku ne sa kër nga koy defee mhm. waaye màggal nag mooy li nga xam ne ñëpp dañu ñëw Tuubaa mhm. su ko defee kon jokk bokk googu muy wax da ciy am ak bokk buñ ko dee jokk defaroo day daal di am mhm. ñun xam nañu ay ay gan yoo xam ne seen diggante amoon na ay amoon na ñagas ñagas wala ay xajam-xajam waaye ci ci màggal ci teew ci màggal li bokk ab dal ca la ñu demee ba waxtaan dem ba yàlla fóot seeni xol. Mm. ba la ci nekkoon lépp da dañ. kon nag lim ni jokk bokk fës na lool ci bisu màggal. Mm-hmm. mu tegaat ci nag ne tam di ziyaare ñi nga xam ne ñooy nit ñu baax ñi. Mm-hmm. te nit ku baax euh, gis ko euh, mën naa def ci yow lu baree baree bari. Mm-hmm. ñaanam mën naa def ci yow lu baree bare bari. ndigal lam lay digal mën naa def ci yow lu baree baree bari. tere gam lay tere mën naa def ci yow lu baree baree bari. kon nit ku baax moom kenn da ko ziyaare muy neen muy ak neen hmm. waaw nit ku baax soo ko ziyaare dana la digal lam la war a digal dana la tere la nga xam da ko war a bàyyi dana la ñaax dana la soññ dana la ñaanal te itam bokk ak moom jataay ak yokk lañ cay séentu waaye kenn du ci séentu li nga xam mooy wàññiku kon daal ni ko Cheikh Mahmoudou Fadil waxee jàng alxuraan hmm. moo ci jiitu tudd yàlla moom la ca teg bernde moom la ca teg jokk bokk moom la ca teg ziyaare ñu baax ñi moom la ca teg waaye da caa teg naan woo maa jaaraa majraaha woo maa jaaraa ak ak leneen lu mel noonu. yii ma tudd misaal la rek. Mm. ay misaal la waaye nag leneen lépp loo xam ne lu baax la nag. Mm-hmm. nga di ko def ci bisub màggal te loolu dañuy gis mbooleem ñi nga xam ne dañuy uh, dañuy dañuy màggal ñuy def loo xam ne lu baax la. Mm-hmm. da nga gis ñoo xam ne ay mécaniciens lañuy doon. Hmm. doon groupe. Hmm. ñu wax ne suñu groupe bii kat ñi ci bokk euh, fas nañu yéene. Hmm. Euh, euh, taxaw ci yoon yi nga xam ne moo jëm si Touba. képp koo xam ne kii am nga paan ci sa oto. nga téléphoné boo téléphoné ñun ñoo lay fekk fa nga xam ne fa nga nekk soo waxee la nga paan ñoo koy fàggu ñoo koy àndaale bu ñëwee ñoo lay dépanné te doo fay dara. loolu kon loolu mu ne wa majara majaraha ak lépp lu ne demee ci lu baax mm-hmm. kon gis nga ne yaa ngi xettaliku nekk ci uh, xat-xat nga di ko mm-hmm. xet nga di ko xettali danga gis ñoo xam ne dañuy sos ay kuréel joxe ay numéro téléphone nga xam ne ku réer mm-hmm. ku réer uh, boo ci boo ca wootee ñoom ñoo lay gindi gindi wala sax ku réer buñ la yóbboo ca ñoom ñoom ñoo lay téye doo xiif doo mar ñoo lay saytu di la lijjan di la lijjanti ba xam say bokk. Mm-hmm. moo tax ñi réer màggal di feeñaat mboolo yooyu nga xam ne ñi koy taxawal moo ko waral te loolu lépp mu ngi dugg ci baat bi sëriñ sëriñ bi waxoon muy majara majaraha mm-hmm. da nga gis tam ñeneen ñoo xam ne ñoom weeru safar fu fuñ ne feeñ na rek. Mm-hmm. dañuy tàmbali defar ay xéewal. waaw di tàngal ay kafe di defar defar ay beñe di defar ay ñam. di di kar kar nit ñi ci mbedd yi ak ak yoon yi ci biir Touba ak biti Touba. Mm-hmm, mm-hmm. waa di berndeel nit ñi. <coughs> kon moom gan la goo xam ne kon ñi koy séentu. Mm-hmm. gan nag soo ko soppee euh, boo koy séentu danga koy yàkkawle ko. def loolu jot nañ lool ne su bis ba ñëwee. Euh, danga def ci bis bi loo man ak loo munut ak loo munut. ndax gannaaw ak ngay bernde. kon bu ak yaakaar nañ ne. Euh, bernde gi loo ci defoon da ko ful kon yooyu mooy yi nga xam ne mënees na ko tudd ak ak nag yeneen ak yeneen mm-hmm. euh, ñiy joxe ay ndox ñiy joxe ay ak yeneen daal waaye nag nañu xam ne nii ñu ko nii nii ñu koy màggale ñu tudd ci ay benn benn mm-hmm. euh, képp koo xam ne nag danga jóg safaan rek moo la tax a jóg mm-hmm. kooka boo ne damaa màggale woon tuubaa it xamal ne dangaa ngaa ñëwoon Touba. Mm-hmm. waaye màggal si woo Touba. Mm-hmm. ndax ni ko waxee ci tàmbali bi. Mm-hmm. mooy nit dana màggal ba noppi du teg tànkam tuubaa mën ngaa dëkk fu la soob ci biir senegal wala bitim réew su bis bi ñëwee nga màggal te séqoo benn tànk. fa nga fa nga dëkk fa nga toog na ko sëñ bi santaane woon yow noonu nga ko defee mooy yaa nga toog fa nga dëkk. ba noppi nag def nga def nga ko na ko war a defe hmm. jàng nga alquran def nga tudd nga yàlla def ngay bernde jokk nga bokk ziyaare nga nit nit ñu baax. Hmm. kon euh, hmm. nit dana màggal te du màggal si. nit dana màggal te màggal si. nit dana màggal si ba noppi tam màggal mooy ñëngu Tuubaa waaye euh, nañ ko santaane noonu nga ko defee kon màggal si nga màggal nga waaye itam nit nag dana euh, dana ñëw Touba ba noppi nag màggaloo mhm. kon yow ñëw nga Touba waaye màggaloo mhm. euh, ndax da ñëw ndigal li ñuy digle mhm. defoo ci dara te amaana la ñuy tere sax bàyyiwoo ci dara nit tam dana bañ a màggal si ba noppi nag màggalul yaa nga toog toog fa nga dëkk waaye li ñu santaane saw yoon néew ci kooka moom màggalul màggal siwul kooku moom jotewul ak sëñ bi dara maanaam màggal siwul màggalul kon ñeent ñooñu ñoo am. Mm-hmm. ki màggal siwul màggal. Mm-hmm. Euh, ki màggal siwul te màggalul. Mm-hmm. ak ki màggal si màggal. ak ki màggal si ñëw Tuuba waaye bi mu ñëwee liñ sa taane defu ci dara. kon ñooñ mooy ñeent ñi nga xam ne. Euh, mat naa ràññee kon nag foo mën a nekk mën ngaa màggal. Euh, waaye itam soo ñëwee Tuuba tam. mën ngaa màggal day tax mu gën a baax rek loolu la mooy tënk bi nga xam ne mën nañ koo tënk ci waajtaayu màggal gi di ñaan sunu mbokk yi nga xam ne euh, fas fas nañ ko yéene def def ko fa ñu ko dëkk rawatina ñi nekk bitim réew sunu borom defal leen tawfiq ak xéewal bañ def ko nañu ko bëggee ñi nga xam ne tam nag dañu fas yéene ñëw suñu borom jàppandal leen yooyu yoon wi ba ñu ñëw ca nañ ko bëggee bu ñëwee def ko nañ ko war a defee te nañu fexe ba lu luñ ciy def na yàlla rek a tax mhm. ndax Serigne Touba lépp lu muy santaane yàlla rek moo tax mu di ko santaane ndax yàlla la doon ba muy sonn yàlla rek moo taxoon muy sonn mhm. kon nag bu demee bay sant xam na ne cant gi kenn ko jagoo muy sunu borom mhm. kon nag na sell na yàlla rek a tax te itam kii sant dañ koy dolli kon nag li ko yàlla defal luñ gën a sant yàlla may yim ko may day gën a dolli ko te lool mooy la nga xam ne noonu la ko sëriñ ci sax wax waxe Mhm. kon nag ñu ngi soññ suñu bopp di soññ mboole mbokk ya nga xam ne fas ñu yéenee mhm. euh, ñëw ci bis bi bu ñëwee daal nañ sàmmonte ak ndigal yooyu nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Fadil tënk mhm. te ginnaaw mi tam ñi ko wuutu loolu nag mooy la la nga xam ne moom lañ doon di digle ku déglu euh, dis discours Cheikh Abdou Lahad foofu rek lay jaar waaw ni ko sëriñ ba santaane te te tañ leeral ko noonu foofu la doon jaar ginnaawam sëriñ Abdul Qadir foofu la doon jaar ginnaawam sëriñ Saalihu foofu la doon jaar sëriñ Saalihu sax da ca daan dolli moom bu ñu dëgmalee màggal su ko wootee ba noppi day fàtt fàttaliwaale gàmm gàmmu da ko doon fàttaliwaale ndax am na ci taalibe yi ñu xir ñoo xam ne fonk màggal fonkeel boo xam ne eh, boo leen dul fàttali gàmm mën naa am duñ ko bàyyi xel moo tax da ko doon fàttali eh, ginnaaw bi tam Cheikh Mouhamadou Lamine Baara foofu la jaar ginnaaw Cheikh Sidi Mokhtar foofu la jaar ñoom ñëpp yàlla na yàlla doole ay xéewal euh, kii fi toog nag wootu leen moom itam woote bi mu woote bëkk démb ñëpp ko dégg gis ngeen ñetti kaamil yooyu mu wax mhm. kon mi ngi soññee ci jàng alquran mhm. ah nee na maa ngi maa ngi sàkku ci ñëpp ku ko man mhm. nanga jàng ñetti kaamil soo ko munul nanga def benn ba loo loo loo man benn ba loo man daal na képp koo wax ne mënoo ko nag na nga seet ña koy def nga bégal leen waaw kon moom itam la ay kilifaam daan woote di ko santaane loolu rek lay woote moom lay santaane kon yàlla na fi gën a yàgg te yàlla na gën a wér mm-hmm. loolu daal mooy li nga xam ne moom lañ ci doon tënk mm-hmm. jërëjëf waaw jërëjëf sëñ Sidi naa laaj bu gàtt rek boo xam ne dañ ko koy tëje rek mooy euh, ñi ñëw ci barab bi ormo bi mu war a am mm-hmm. ak euh, béréb yi ñu fiy siyaare ci nan ban anam. Hmm. ak ndax lu nekk rek comme ni nga waxee ni ñu war a màggalee. Hmm. loolu dafa bokk ci euh, màggal gi nga xam ne ñoom bu ñu jógee dinañ siyaare barab yu bari. Hmm. waaye ni ko war a siyaare teggi ni siyaare barab ak yooyu ak siyaar bi. waaw moom loolu moom Serigne Saalix euh, ñuy wax wax nañ ca wax nañ ca ba sonn. waaw ñi nga xam ñooy wax wax nañ ci wax nañ ci lu bare bare bare mel na ne lu bare bare ci nit ñi nit ñi. nee ko ñoo waxal nee ko ñoo waxal waaye ay teggiin moom moom euh, ni ko sëñ Tuubaa waxe ne euh, fa axbaru bi annahu kaada yakun sulu say diini fafat loxo yebi yebiin nee na teggiin bu diine doon ñetti xaaj ñaari mooy teggiin bu diine doon ñetti xaaj ñaari yëpp ci teggin rek la nekk teggin sa digganteeg sa borom teggin sa digganteeg uh, sa mbokki doomu aadama teggin sa digganteeg sa bopp. barab yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi dalee ci barab bu mag bi ak barab yi nga xam ne ñooy njabootu Cheikhul Khadim ak barab yi nga xam ne mooy barab bi mag ña àndoon ak Cheikhul Khadim. barab yooyu su maggal jotee ñu baree bari dañ fay dem. ndax danga dégg danga gis koo xam ne da day daan dégg kenn ci njaboot gi te mosu koo gis ñu ne ko fii la të fii tëdd ñu ne ko mi ngi tëdd fii wala daraan dégg kenn ci mag ñi te xamul fu mu nekk ñu ne ko fii la tëdd sëñ ma numbi moo nekk fii sëñ ndaam moo nekk fii Cheikh Issa Dieng moo nekk fii sëñ Mat Jaw Paxa moo nekk fii maam Cheikh Rafal moo nekk fii su ko defee ñu fay dem euh, ziyaare leen dem gi ñuy dem ci barab bi nag barab yëpp nag rawatina barab bu mag bi ku fay dem wax dëgg yàlla. war ngaa fàttaliku ki nga xam ne moo fi nekk. Mm-hmm. dangay ngay fàttaliku fi nga xam ne fa tànkam. Mm-hmm. del fàttaliku fi mu jaar. Mm-hmm. del fàttaliku coono yi mu daj. del fàttaliku liggéey bi mu liggéey. del fàttaliku ngërëm li nga xam ne moom la am. jii soo ko bàyyee xel. dana tax ba soo fay dem sa xol dana tooy. ba dana am loo tal te doo ko tal. da nga gis ñoo xam bu ñuy ñëw një njëkk dañuy njëkkante mhm. te njëkkante matu ko mhm. julli sax dañoo wax ne bu ñu li xaamee mhm. bu la fekkee ngay daagu na a daagu bul waaxu bul bul daw loo ca fekke xam ne moom nga ja fekke lépp lu la faat nga mën koo fay kon nag jullee gën a rëy lépp ci lislaam kon leneen lu mën a doon jërul xëccoo jërul njëkkante jërul daw am na ñoo xam ne bu ñuy dugg ci barab bi euh, li tiim bunt bi dañ ci teg seen loxo dañ koy laal mm-hmm. bu dee sax nda nda ndaa ndaama day day tëb day tëb ca kaw ngir bëgg koo laal mm-hmm. loolu moom kenn xamul fu mu ko <laughs> kenn xamul lu mu doon mm-hmm. am na ñoo xam ne bu ñu duggee ci barab bi dañ koy raay dañu koy raay te raay barab su yàggee dana indi jaamu leneen lu dul sunu borom barab kenn du ko raay bu ñu demee ci mañ moo boobu sëriñ ab Lahad mooloon am na ku ci doon doon laaj sëriñ Touba. Mm-hmm. barkeelu mm-hmm. di ko wax ne ko soo foree kayitu alquran mm-hmm. wala ndoxam uh, zam-zam wala nga dem ci xabrub waaju baax noo war a barkeeloo mu ne ko kayitu alquran de nañ cay barkeeloo mooy nga fekk mu ne ci suuf wala wala barab boo xam ne kenn du ko warmaal nga yëkkati ko teg ko fu ñu warmaal mu ne ko uh, zam nañ cay barkeeloo mooy nga de ca naan raayu ca mu ne barabu kilifa tam nañ cay barkeeloo mooy nga tënku ci la lam lam ci lam santaane bu digalee nga def bu teree nga bàyyi di di ko ñaanal di ko ñaanal di ñaan yàlla ci barkeem di ko ñaanal di ñaan yàlla ci barkeem kon dem ci barabu kilifa di fab xaalis naan ko xër ci biir loolu du worma loolu du worma. dem ci barabu kilifa. raayu di ko raayu. di di ca raay loola du wor worma ndax li ngay sàkku. ci sunu borom te di ko jaarale ci moom. nekkul ci weñ gi ngay raay nekkul gi ngay raay. mbirum baatin doonu loo xam ne dañ koy laal. doonu lu ñuy laal. te li ngay sàkku foofu. mbiru mbiru mbirum baatin rek la. ndax da ñëw di ko ñaanal si. boo ko ñaanalee ba noppi nga ñaan sunu borom ci barkeem te am na ñaan koo xam ne sax sëriñ bi ko def ne ne bari na koo xam ne jàpp na ne damay ñaanal fekk ñaan ñaanalu ma amaana sax damay ñaan yàlla damay ñaan yàlla daal ku ma bëgg ñaanal nag na nga wax lii kon nag dem ci barabu kilifa boo mënee jàng ñaan gi nga jàng ñaan gi soo ko munul nga jàng say lixlaas loolu ñëpp ko man wala nag fab sa xasida ndaxte xasida yi lépp defe naa ne bi may lim sax ni ñu war a sante xasida dama dama koo fàtte jàng xasida dama koo fàtte xasida lépp lan la lépp lu mu làmboo tudd yàlla sàbbaal yàlla seelal yàlla ci lépp lu jaaduwut bàkk yàlla yëkkati yàlla ca kaw sant yàlla tuubal yàlla. Mm-hmm. julli ci yonent bi. Mm-hmm. ñaan yàlla. Mm-hmm. loolu mooy xasida. xasida ba mu jeex. lu ci génn loolu amut. lu ci génn loolu mooy li ko sunu borom defal moom sëriñ bi. mu di mu di ko mu di ko ci sant. defal na ma nangam defal na ma nangam te tudd gi. da ko ci sant. kon nag xasida yooyu rek la bàkk yàlla yëkkati yàlla sell sellal yàlla sàbbal yàlla. Euh, ak nag julli ci yonent bi. ak nag ak ñaan. ak nag sant sunu borom. kon boo demee ci barabu kilifa. ba tey dafa jàng xasida mel na ne yooyu yëpp yaa koy yaa koy def. waaye lii xew nga xam ne nit ñu dañuy dem di tëb di laali bunt ca kaw. ak di raay barab bi. ak di di fa jaxasoo góor ña jigéen ñi di fa jaxasoo yooyu yëpp bokkul ci ay worma. loolu yëpp kon dañ ko war a bàyyi. te xam na lislaam daal lépp luñ ciy def. nañu fexe ba mu dëppoo ak sunna. waaye lépp luñ ci bàyyi tam nañ fe nañ xam ne lii dañ ko dañ koo tere moo tax ñu di ko ñu di ko ñu di ko ñu di ko bàyyi. lool laal kon maa ngi bàyyiloo xel ndaw ko ndaa yeeg yenn uh, gaa yi nga xam ne dañuy ñëw ci barab ci barab bi. Mm. rawatina barab bu mag bi di ziar. <coughs> Mm-hmm. buntu yi ñu tëb di ko laal laal nañ ko nañ ko bàyyi. Mm-hmm. loolu mu loolu moom bokku ci. Mm-hmm. te itam ñu mën di def. bu ñuy ziare su waxtu jotee bu ñu allahu akbar lu waaye doon def na ko bàyyi. lu waaye doon def sëriñ bi nee na bu bu bu daan nee ñu bu daan attaaye sax. Uh, bu dégg allahu akbar. baraada bi du ko teg du ko teg ci ci da koy wacc moom da koy wàcc rek mun a tël ndax nee na loo mën a loo mën a def boo dégg allah ko ban mooy mooy lii nga nekk de mhm. lu mu rëy rëy rëy mhm. yàllaa ko gën a gën a rëy mhm. li nga nekk lu mu baax baax yàlla yàllaa ko gën a baax li li mu li ngay jëf de lu mu ñor ñor ñor dem jaamu yàlla moo moo moo gën a ñor kon nag kuy siyaare su dégg allah ko bar foo nekk foo nekkoon nag na nga daal àgg suuf toog. Mhm. sàppe bañ julli ba noppi looy def nga door koo def. Mhm. waaye ñuy julli. Mhm. ngay kër këri. ñuy julli euh, ngay def na ko sudul noona lool daal maa ngi koy moytuloo ñi nga xam ne dañuy ñëw ci barab bi ne dañuy ziyaara si. loolu daal mooy liñ ci mën a dolli wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barakallah jërëjëf Serigne Sidi Mokhtar Ka ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax. waxtaan wi moom bëggoon naa <laughs> télé ci àdduna bépp ñu tegandoo ko rek wax yàlla waxtaan wu ama am solo la woo xamante ni jàpp naa ne kuy dikk da ngay yeesalaat sa li nga wax sellal waaye la ngay njëkk a yeesal sax mooy innamal ahmaalu binniyaate da ngay yéene yéene ju sel yéene màggal si waaye boo ko yéenee tamit da ngay yéene jëf-jëf juugi ndax eh, mbirum yéene ku ko defut ci jëf mel na jëf ji day dog Euh, kii dem màkk sax bu yéenewut dem màkk day mel ne day def benn tourisme bu bees rek waaye ajuwut kii julli tamit bu fekkee ne amut yéene day mel ne day sport rek kon yooyu nag nan bàyyi ko yooyu nag la ca biiram nag la koy taxawal mooy sellal loolu lépp sëñ Sidi Muxtaar wax na ñu ngi lay sant baax di sant nag sëriñ fallilu di ko ñaanal yal na ko yàlla dolli ay maqaam ak i ngërëm bil nu bunt boo xamante ni wax dëgg yàlla euh, ñu ngi koy sant bu baax a baax sëñ Fàllilu ñu ngi koy sant bu baax a baax di sant sëñ Tuubaa